fa inna xayra alkalaami kalaamu llahi taala wa tabaarak wa xayra alhadyi hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharra al-umuuri mahdasaatuha fa inna kulla mahdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar naudu billahi min annaar mbokk jullit yi daarul birr wal irshad ak daarul birr tv noo ngi delsi waat ak ci afala taaqiluun dars bi ñu génnee mi ngi nekkoon ci moytu bi jigéen ñi war a moytu juróom-ñetti façon góor yi nga xam ni bu ñu lay labat ci jabar walla ñu lay tànn nga gàntal leen ndax duñu jëkkër waaye tey noo ngi ñëw ci moytuleen fukki mbir su fekkee seen néegu sëy dafa yëngu maanaam ñiy sëy jamono bu ñu amee jafe-jafe seen néegu sëy nañu fexe ba fukki tomb yi ñu moytu ko in araadul islaax su fekkee bëgg nañ sëy bi bañ a yàqu ndax ñaar ñiy sëy noon bi ñu njëkk a am mooy seytaane mooy iblis moom du bëgg sëy bu jaar yoon su dee fo bëgg na ko su dee caaxaan bëgg na ko ba tax na lii defar sëy moom dafay jóg ngir yàq ko kon yéwénoo ci biir néegu sëy lu jaadu la borom bi ne wasulxu xayr ngeen fexe ba defaroo yow góor gi ak jigéen ji comme jot ngeen a ànd ngeen yéwénoo moo gën te yéwénoo nag kenn ku nekk day am lu mu bàyyi ngir mën a continuer ak moroomam moo xam jigéen ji la moo xam góor gi kon fukki tomba ngi bankal sa baaraam bi ci jiitu mooy rafuul aswaati inda xilaaf jëkkër ak jabar su ñu amee ñàkk déggoo ak xuloo te sax xuloo jaaduwul nañu moytu baat bu jóg lu mel ni gëdd ak yuuxu bu ko góor gi def bu ko jigéen ji def góor gi lu mer mer na am maîtrise ba bañ a yuuxu walla mu bañ a gëdd ndax am na nit ñoo xam ni saa boo leen yuuxoo walla nga gëdd leen rekk yóbbu nga leen ci état bu dof su boobaa li nga leble rekk lañ lay bëgg a fay ndax al jazaau min jinsil amal kon góor gi na moytu yëkkati kàddoom yuuxu ak wane ni may góor waaye jigéen jiit nag war naa mën a am maîtrise moom it bana fekk góor gi ci yuuxoom ndax comme moom mooy jigéen yàlla da ko bind mu nekk ku war a dalal góor kon moom it ñoo ngi xaar ci moom su boroom këram juume ba yuuxu moom na ànd ak dal su àndeek dal rek incha allah jafe-jafe bi dana yomb kon ci biir xuloo ak histoire walla jafe-jafe ci biir sëy nañ ci moytu yuuxu gëdd yëkkati baat ci kaw ñaareel bi ci yi ñu war a moytu mooy asabbu wa shatm yéen ñaar ñiy sëy xam ngeen ni moos bëñëg ak làmmiñ ñoo dëkk il faut jafe-jafe am sëy mënta dëkk ci neex léeg-léeg mu neex ba mel ni ajjana waaye léeg-léeg mu naqari comme loolu day faral di am nag te bëñëg ak làmmiñ ñoo dëkk léeg-léeg ñu jote kon nañu moytu ci biir jote bi ŋàññ mooy xas jigéen bul xas mukk sa borom kër xas mooy wàññi nit ki mooy waxal ko lu amul walla nga waxal ko lu am te neexu ko waaye a mu nañu ko moytu na ko góor gi moytu mooy saaga saaga sa way juru soxna loolu mook saaga sa way jur bi la jur ñooyam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bulen leen rëbb seeni wayjur sahaaba yi ridwanullahi alayhim ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow yonent nan la nit di rëbbee ñaari wayjuram yonent bi ne rëbb sa ñaari wayjur mooy nga saaga ndeyu jàmbur walla baayu jàmbur moom it mu saaga la kon boo nee nit ki damay nangam tudd way wayjuram kon yow sa bopp nga saaga kon moytu ko yow góor gi ndax jamono boo saagaa jigéen ji delloo la ko mooy jaxasoo day am kon yaral sa kàddu sa digganteeg sa jabar ndax sa goro sa pàppa moom mi jël doomam may la ko kon waroo ko saaga sa goro bu jigéen sa yaay la moom mi jël doomam may la ko sa moroomu yaay la kon nag bu la seytaane mën mukk ba nga saaga waaye yow soxna sit nag bu la seytaane mën ba nga ŋàññ walla nga xas ñetteelu tomb bi muy iyaaka an tadriba fi waqti alxilaaf yow góor gi jamono boo joteeg soxna si nee nañ la moytul di jëfandikoo dóor ndax saa bu jote amee nga dóor rekk dootoo mën a am dëgg kon dangay ngay moytu dóor alquran de wax na ko waaye bëggut ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yi gisoon nañ benn bis muy xutba mer lool mu ne ana kan ci yéen mooy jël soxnaam dóor ko ni mbaam guddi nga soxla ko kon dóor yow góor gi na nga ko moytu jigéen ji na ko moytu ñun ci suñuy aada lu bari góor mooy faral di dóor waaye léeg-léeg bu dee ci européen yi walla ñi nekk ci bitim réew léeg-léeg ñu jël jikkoy naar wala jikkoy tubaab naar léeg-léeg jabar dina dóor jëkkër tubaab léeg-léeg jabar dina pes jëkkër loolu nag danga koy moytu lan moo leen ci yóbbu mooy ñàkk yar ak société bu yàqu jigéen bu demee ba xelam jox ko mu yëkkati loxoom di pes jëkkëram wala xotti yéreem wala poñe ko wala jàpp suufam loolu seytaane koy def ñaata jigéen ñooy mer jàpp seen suufu borom kër indil ko loo xamante ni àddunaam yàqu na kon loolu na ko jigéen moytu jigéen ju baax <coughs> du def loolu ngeen baal ma waaye góor gu baaxit du def lu mel noonu kon ñetteelu tomb bi mooy moytu dóor ñeenteel bi seen problème yow góor gi ak jigéen ji na ngeen ci génne li ñuy tuddee fàttaliku fàttaliku li wees gis nga lu wees dañ koy suul ndax jamono bi nga jot ak soxna si tey mu juum walla yow nga juum kenn ku nekk na gas li juum te li paase ndax jamono bi mu juumee baalu na la walla ñëw nañu ba defar seen diggante ngeen baalante su beneen problème amaatee yow góor gi bul ni defoon nga ma ko fan yee passé defoon nga ma nàngam déedéet loolu bu ko fàttaliku waaye jigéen jiit bu mu wax góor gi ne ko defoon nga ma nàngam defoon nga ma nàngam loolu seytaane moo koy indi te nekkul melokaan bu baax ndax seytaane buggul seen diggante rafet li mu bëgg toujours tàqale seen diggante moo tax mu lay fàttali jëf yu wees kon bul ubbi mukk mukk mukk jëf yu weesu di ko fàttaliku donte ndaw see juumoon bu ko fàttaliku yow ndaw si doonte góor gee juumoon bu ko fàttaliku ndax kat képp koo xamante ni dañu laa baalu ba defar sa diggante soo dee gor waratoo fàttaliku loolu nag ndax amoon ngeen jafe-jafe ba ay nit ñëw defare leen wala seeni way jur ñëw defare leen te xam nga ni wa sulhu xayit kon su ñu leen defaree beneen problème am problème beneen bi am ci ngeen war di wax bi am ci ngeen war a wax mais bàyyi leen bi passé par exemple am ngeen jata yeen ñaar toog leen ngeen waxtaan ci problème bi lan la waaye bëgg toog naan defoon nga démb defoon nga bërki démb loolu dafay indi fitna ñu bëgg a defar bu ñu ubbi buntu li passé juróomeelu tomb bi mooy ci biir jote bu leen ci tudd baatu passé góor bu mu maye baat jigéen bu mu ñaan baat ndax yéen a ngi ànd te yéen ñi xës ba ànd seen ànd moo gën ngeen di tàqalikoo te bu ngeen tàqalikoo ku ne am keneen waaye nag bu fekkee da ngeen a jote ngalawaay góor gi bul di mer rek tudd baatu may naa la sa baat fase naa la man pare naa ci yow suur naa la def naa la comme sama yaay déedéet góor du def lu mel noonu waaye jigéen ji bu mu mer mukk ba ni may ma sama baat yow dangaa bon boo ma fasee beneen góor takk ma déedéet déedéet bàyyi leen loolu ci biir xuloo baaxul ndax may ma baat day indi yàqu-yàqu may naa la baat day indi yàqu-yàqu loolu na jabar moytu ñaan baat waaye na jigéen na góor moytu it maye baat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bépp jigéen bu ñaan baat ci lu dul benn ngant bu islaam xam nee na malaaka yi dañu lay rëbb yàlla nañ ci yàlla musal kon nag kenn waxul ni ñaan baat xaraam na kenn waxul ni maye baat xaraam na waaye bu fit fitna amee baat boobu na ngeen ko teg fële góor gi dal du góor guy baa gaaw a fase kon génne leen loolu mooy juróomeelu mbir mi juróom benneelu mbir bi ci biir xuloo lii nag jigéen la gën a concerné mooy tajannabil xuruja min al bayt bu leen xuloo rek yow jigéen ji nga jël sa bagage fay jigéenu góor du fay jigéenu jàmbaar du fay jigéen bu ragal yàlla du fay jigéen bu bëgg àjjana du fay fay jigéen ji koy def mooy jigéen bi ñàkk jom mooy jigéen bi xas xaslu way juróom bu jigéen mooy jigéen bi ragal ndax kat problème dañ koy affronter mais kenn du ko affronter ay génn kër gi dem ci sa papa dem ci sa yaay wala dem ci sa frère ne da ngaa fay loolu boo ko defee dootoo peser dara ci sa kanamu jëkkër dootoo ko peser ci sa kanamu dëkkandoo ndax boo xësee ba fay del siwaat rek mooy ku la xool da ngay foog ñu loolu la la xoolee kon nañu ko moytu waaye góor gi moom it na moytu baat wax ko jigéen ni ko génnal sama kër génnal suma néeg déedéet déedéet déedéet loolu góor gu gore waruloo ko wax ndax jigéen ji rakk la ci yow soxna la ci yow mbokk la ci yow dëkkandoo la ci yow sa genn wàll sa seex la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne an nisaau shaqaiqu rijal nee na jigéen ñi ñoom ñooy doomu ndey góor ñi ñoom ñooy doomu baayu góor ñi kon loolu nañ ko moytu mer rek fay waaw mer rek fay déedéet alquran nee na góor ñi wala yaxrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyina nee na jigéen ñi bu ñu génn lu dul ñu def ñaawteef bu ñëpp xam te ñaawteef boobu mooy njaaloo wala def lu ne noonu juróom-ñaareel bi ci néegu sëy bu problème amee mooy nañu moytu móolu móolu xaw ma xam ngeen wolof boobu wala déet moolu mooy jékki ne sa jëkkër su booxul ma la yàlla na nga dee yàlla na nga nàngam góor gi it mer na jabar ji yàlla na nga torox yàlla na nga alku déedéet loolu mooy li gën a dangereux ndax li tax moolu bon mooy boo ñaanalee nit ki lu bon tombeeg yàlla nangu ko bu amee mooy seen diggante mooy fitna day am te jullit warul ñaanal jullit lu ñaaw waru koo ñaanal alku yàlla na nga dee sama àq yàlla na la topp non soxna si bul mer ba wax ko sa jëkkër jëkkërit bul mer ba wax sa jabar ne ko sama àq yàlla na la topp déedéet ndax sa àq bu ko toppee su boobaa di nga ko bëgg yërëm dootu ko mën a yërëm di nga ko bëgg dimbale dootu ko mën a dimbale kon nag wasulxu xayr yéwénoo leen defaroo leen sëy bu ngeen fi gis mu neex rek am na ñoom ñaar ku muñ ba sonn kon il faut ngeen muñ juróom-ñetteel bi ci liy yàq jafe-jafe sëy bu sëy amee xuloo am problème am bu kenn dugal sa mbokk ci biir laa tudxil ahlak sa mbokk mooy yow jigéen ji bul joteeg sa jëkkër rek jël sa téléphone woo sa papa bul joteeg sa jëkkër rek jël sa téléphone woo sa yaay yow jëkkër ji bul joteeg sa jabar rek jël téléphone woote eh kii may naa ko baataa kii nangam déedéet yow góor gi li ñuy xaar ci yow nga nekk góor gu diiñ nga nekk góor gu mën a muñ nga nekk góor gu attan waaye nga nekk góor goo xamante ne day fàttaliku lu bari bul mer rek wax sa problème kon dalal yow la ñu yaakaare muñ ndax yow yaay borom kër gi xam nga biir sëy bi jigéen bu joteek jëkkëram wax ko papaam mooy indi nga jafe-jafe sa diggante papa ak sa boroom kër su ngeen jotee nga wax ko sa yaay indi nga jafe-jafe sa diggante borom kër ak sa yaay su ngeen jotee nga wax ko sa sœur wala sa frère indi nga mbañeel dana dajeeg ñoom ñu xool ko xoolin boo xam ne yow génn nga ca te ñoom mënuñ caa génn ndax bëri na bu jigéen joteek jëkkëram boole papaam boole yaayam wax waa këram ñu meral la jàppale la ba pare nga ñëw ngeen juboo àndaat mel ni problème mësta am léegi sa famille des ci biir nag ku dajeeg sa jëkkër di ko xeelu wala sa jëkkër bu ñëwee ci kër gi kenn dootu ko dalal su waxee kenn dootu ko faale parce que bëri na jigéen ñoo xam ne dañuy yàq denu góor ci kanamu seeni wayjur loolu rafetut loolu dafa ñaaw na ko jigéen moytu waaye bëri na góor ñoo xam ne it yàq seen deru jabar ci seeni kanam wayjur loolu rafetut loolu dafa ñaaw kon say mbokk say proche bu leen dugal ci sa biir sëy nekkal ku diiñ jéem koo régler sa bopp baal ba guddi nga toog waxtaan wala bëccëg nga toog waxtaan te booy waxtaan yéene bi na nekk defar ndax ki ñu la may dañ laa waxoon nanga ko jubbanti juróom-ñeenteel bi ngan la waay moytul mukk nga am sa problème yaag sa jëkkër jàpp ni dañ ko daa am loxo ci dugg dañ koo def walla nangam nangam bëri na ñaar ñu jote dem ba ci yàgg ne diw ma xooloon diw moo ma liggéey diwa ma njabar wala magam moo ñu njabar wala yaayam moo ñu njabar noo bul gaaw a dugg ci loolu xam nga boo nee nit daf maa njabar te njabaru la mooy tuumaal nga ko boo nee nit moo tàqale suñu diggante te defu ko tuumaal nga ko sëy day am problème day am problème yi am na bu fekkee njabar am na jéem a faju dindi ko moo gën waaye bul teg nit ni moo ma def te fekk kooku defu la ndax bis boo nee diw moo ma njabar diw moo tàqale suñu diggante ku ko dégg dana mere kooka te fekk moo ko def kon loolu mooy juróom-ñeenteel bi toujours bu jafe-jafe amee nañu ut buntu buntu bi mooy nañu fexe kenn ku nekk ci ñun laajaat mbëggeelam nga laajaat sa jamono xool say doom xool sa avenir fàttali passé nga toog waxtaan fas yéene muñ ndax dangeen di tabax loo xamante ni am na ko taxaw pour yàq ko muy seytaane fukkeel bi te fa lay jeexee mooy jafe-jafe jëkkër ak jabar histoire bu leen ci dugal seeni doom seeni doom te loolu nag lu bari day dal jigéen ñi léeg-léeg joteeg sa borom kër meroog moom nag sa doom naa ko sa papa lim ma def sa papa baaxul nag bari na way jur yoo xam ne seen doom da leen a bañ fekk yaay yi ñoo ko def kon yaay fexeel sa doom bëgg papaam au lieu que ngay tàqale digganteem ak papam ndax am na loo koy chargé di ko wax ay baat ci papaam bu yàggee dootul bëgg papaam dootul xool papaam dootul respecté papaam te yéen ñaar li ngeen séqi yéen ñaar war ngeen ko mën a réglé mais ngeen bañ cee dugal doom waaye xuloo ba pare nga jël sa doom bu jigéen di ko wax sa papa lim ma def sa papa nangam sa papa dafa maa takkal wujju dafa maa nàngam dafa maa nangam su ko defee doom ji bu gisee papaam ciipatu wala bu ko papaam wooyee mu xool ay bët même bu ko bu bu ragalee sax bañ koo defal dana ko def mais du ci ànd ak fekk yaay moo fa jaar waaye am na it papa yoo xam ne noonu la mel dañuy joteeg seen jabar te seen doom naan ko sa yaay baaxul sa yaay dafa bon sa yaay dafa nàngam déedéet loolu góor gu ragal yàlla waru koo def ndax yaay moo jur doom bi kenn du wax doom ne ko sa yaay dafa bon sa yaay dafa nàngam na ko papa moytu na ko yaay moytu kon fukki mbir yi mbokk bu ñu bëggee suñuy sëy di defaru wax naa ni sëy munta ñàkk problème ndax seetaane du ko seetaan na nañu xam ni as-sulhu xayr nañu defaroo borom bi nee na ngeen di jéggalante na ngeen di jéllalante na ngeen di jàppalante na ngeen di baalante kon fukki mbir yi bu ñu ko moytoo ci jafe-jafe sëy mooy fase dootul yomb ma résumé waat ko mooy yëkkati baat ci biir xuloo ne ko góor moytu jigéen moytu ko ñaareel bi saaga ak ŋàññ ne ko jigéen moytu góor moytu ko ñetteel bi dóor na ko góor moytu jigéen moytu ko ñeenteel bi fàttaliku li wees na ko jigéen moytu góor moytu ko juróomeel bi ñaan baat walla maye baat na ko góor moytu jigéen moytu ko juróom benneel bi fay na ko jigéen moytu juróom bi dugal seen problème seeni wayjur wayjur kenn du leen teel a dugal ci jafe-jafe jigéen ji na moytu loolu na ko góor gi moytu juróom ñeenteel bi nañu moytu jàpp ne saa bu problème amee rek dafa am ku dox seen diggante daa am ku leen njabar loolu nañ ko moytu fukkeel bi mooy nañu génne doom yi ci biir jafe-jafe bi na jigéen moytu di wax doomam jafe-jafeem na góor moytu di wax doomam jafe-jafeem hada wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi